المنى والملة السلام عليكم ورحمة bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi am mbégte di àndaat ak ci jataay bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu jot danañ ko amal fii ci jumaa ju mag ji tey jii la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ci atum 1443 ci gàddaay gi di séentu bu njëkk ci weeru safar ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahamadul xaa yàlla na ko fi yàlla yàggal gën gën a yàggal gën doole ak wéram ñu toog ak commission bi nga xam ne sëriñ Serigne Mouhamadul Mamoun Bousso imam moo ko jiite waaye feggoo ak Serigne Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kaddu commission bi feggoo ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu jumaa ji feggoo itam ak mbooleem presse bi ci teewaayu Serigne Djili Niang ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ñu fas yéene ànd ak yéen ginnaaw boo xam ne séentu nañ weer wi ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent suñuy représentant yi nga xam ne ñoo nekk ci këri sëriñ Touba yi te Serigne Modou Mbacké si di leen saytu kenn ku ci nekk ñu am fa waaye Serigne Bassirou Mbacké mu Serigne Abdoul Khoudous di dox suñu diggante ak waa Tiwaawan Euh, sëriñ Imaam Ndiaye nekk ca RTS moom it dox suñu diggante ak commission bu dakaar bi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk danañ jokkoo ak yow soog a delloowaat kàddu gi ci kër sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ndigal lum ñu jox ñu yëkkati ndigal loolu ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxee na ko nag ginnaaw commission bi seenug saytu ba noppi mu ngi ci kàddu sëriñ Abdou Diop Imaam dañ koy maase déglu mu leeral ñi nga xam ne moo jóge ci kër sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ni ko Serigne Fallou Galas si la waxee rek mooy nen ko baaxoo def mooy sëñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne dana na yebal ci jumaa ji ñu yéene fi ne nañ seetu weer bi te lu ci waaye xam nga ñëw yëg bi buñ ko defee ba noppi danay génn jàkkaarloo sow di séentu weer wi nan nin ko war a séentoo ak di jokkoo gox yi ak représentant yi ba ba ba mu guddi bu guddee ba nga xam ne nag séentu weer weesu na nu door a jokkoo kër sëñ ba noonu lañ def tey nag bi ñu jokkoo kër sëñ bi ba wax ko ni liñ gisit lam nu tontu mooy yéen ñi ko ci koy toppatoo rek eh, am ngeen ndigal ci nu ngeen ci gis ngeen ngeen gi ko léegi nag kon ginnaaw léegi séntu weer wéen a te te waxtu wi jot na kon ñu xam ne weer wi feeñut ñu xam ne suba day moom day day mottali weer wi suba ci alarba ji waaw mooy fanweereelu fan bi alxemes mooy benn fan bi kon ñu xam ne màggal gi di di biir lay doon waaw incha allah ñu xam ne daal weer wi feeñut ci ndigalu sëriñ bi daal xam ne ne weer wi feeñut dañuy mottali fan weeri fan suba ci àllarba ji alxemes mooy benn fanu màggal weeru màggal gi weer benn fanu safar na ko ñëpp xam ñu ñaan sëriñ bi yàgg fi lool te ànd ak wér ci dara sëriñ Tuubaa ba ni mu yéene lépp mu def ko dana ànd koog moom ci ci ci ci wér ci dara sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala baraka ñoo ngi sant nag bu baax a baax waa Lamp Fall ñii ak waa Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne ba ñoom daanaka ñu ñu ci yëpp yite sax fuñ toll ñi ngi ci def ay communiqué di laaj ah, ñoom liggéey nañ ci liggéey yu rëy rëy kon nag ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi eh, mbokk yi loolu mooy déclaration bi ñuy sant nag mboolem presse départementale bi yëpp ak presse régionale bi fu mën a bàyyi koo Eh, ci li nga xam ne mooy liggéey bi tey jii mooy talaata doonoon séntu bu njëkk weer yu feeñut àllarba mooy doon fan weeri fan alxemes mooy benn fan ci weeru safar kon gaawu dimanche mooy war a nekk màggaluk Touba màggaluk Touba dibéer lay tollool ren ji incha allahu rabbi di 26 ci eh, septembre le 26 septembre incha allahu rabbi mooy doon bisub màggaluk Touba yàlla na ci yàlla yóbbu. te yombalal ñu luñ fa santalee sëriñ Touba yàlla te lépp luñ ci def yàlla ko sëriñ Touba gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.